الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبد العزيز سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه سبع رضوان وتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين mbokk yi di dégg ñoom ñu ngi kenn ku ci nekk ci turam ak santam gannaaw dañu sant suñu borom subhanahu wa taala sant ko am fu mu tàmbalee waaye nag amul fu mu yem ci ndaw fee xam yu màgg te kawe ak xéewalam ak ndimbalam ak kàttanam ci sunu kaw yoo xam ne mënee su ko lim ñu lott daye bu lott yi ci cant ko di joxe cant la sawar waaye nag wax ne ñu mag li suñu diine ci di ko wéetal si jëmmam ak ci jëmmam ak ci melokaanam tey dellu di yeesal tënk ci ay ndigalam te nga xam ne mboolem li ñu bëgg lépp àdduna ak àllaxira moom ci biir li mu ndigal ñuy gën di wan gannaaw li mu teree te ñu naa nga xam ne mboolem li ñu ragal lépp ci àdduna ak ci àllaxira moom ci biir li mu teree ndax suñu borom dafa bind doomu aadama bind adduna andi ko fi lépp ci nekk mu tëll ko ci ay aada yoo xam ne ca lay doxe ñi nga xamante ni noonu la demee ci ndox képp ku mar bu ci naanee màngi waaye sawara boo ci tegee sa loxo mu lakk la ak lu mu doon rek mu jël ko sabab boo xam ne ci la nit koy jaar ngir mën a yegg ca loola dafa def it boole li jàmm ragal lépp daf koy def ci biir li mu ko tere mu xam li yëwénal dundu doomu aadama bi ci adduna ci àllaaxira lépp it mu doxal ko ci ay ndigalam ne ko bii kat boo ci jaaree doo dajal benn torof torof doo dajal benn naqar doo dajal benn tiis li nga bëgg lépp téye ak lépp dañ ko am waaye li jàmm bakal lépp it ni nga ko waxee léegi mu def ko ci biir li mu tere nga xamante ni jàng bi bu wattandi ko bu wattandi ko li suñu borom bi subhanahu wa taala tere kooku day day noppi yaayam day day doon yi koy dara bu noppi déglu waxtaan ci gëneen anam mooy dem kon ñu sant suñu borom bu baax te di ko wéetal si gëneen ci li mu wax ci melokaanam di julli ci yonente bu tedd bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu borom it bi mu bindee doomu aadama bind àdduna indi ko fi moo leen di yërmandeem ak taw feexam ak xéwalam daf koo def ci biir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ko ci waxam ak ci leeram ñu ko alxaqiqatu muhammadiya mboolem yonente yëpp ci lañu tànkay waaye loolu yëpp it ci lañu tànkay kenn ku ci nekk boo ko seetloo mu nekk aw na ci moom di dootu ci yërmande ak leer ngeen ne taw jaaxal barke seen borom it tegtal nit ñëpp jëmmam bi tëdd jooju bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy def buntam di ñaan leeru suñu borom ak kattanam leeru suñu borom ak yërmandeem yàlla moom dañ ci dëdd ko ci ruuxu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ak mbooleem ñi nga xamante ni jiitu woon nañ ko ci lislaam te doon bay ci loolu lislaam bi ak mbooleem ñu koy mujj gannaaw tey bay ci loolu lislaam bi ñu ñëw ci téere bi nga xam ne Saalikal Jinaan muy sóobuwaayam ak janaam téere la boo xamante ni Cheikh Ahmadou Bamba moo ko taalif waaye nag dajal ci yuuru mboolem téere yi ñu ko njëkkoon te doon jàngale yoon nga xam ne ku ci jaar te wàccut te dëkkut taxawut gëstuwut dana làq ngërëmal boromam dana xam boromam dana bànneexoo xam ci xam yàlla ci dundam ci àdduna waaye dana bànneexoo yi ci xam yàlla ci dund koy lagam ci àllaaxira li mu ko waxale boppam ci biir téere bi dana ci ñëw léegi muy téere boo xamante ni bi mu koy taalif li ma am ci ak taxul mu bari lool mooy bi ñuy door a sosit di leeral duñ wax sos sax waaye sos la ñuy wax ndax murid ni ñu ko leerala woon ba suñ borom amee mu bind adduna ji mën ko mu lay ko wàcce ay jaamam ñooñee jëm ci yàlla te ku ci jëmit nu ànd ak yow jiite la ci yoon la ne leen topp ñoom lañuy wooye ay murid muy yonent yi ay ñu ñëw seen gannaaw di awliya yi ak ku mënul awliya yi mu ñëw nag fekk yoon woowu yi ràpp lool nit ñi di fooye alxuraan ak mboolem la ay ci lislaam ñu gannaawal ko sàggane ko jiital seeni aaday bopp ak seen bëgg-bëgg yi bopp noonu ñuy wax ni loolu la nekkoon alxuraan daanaka dafa mu gën alxuraan lu ñuy taasoo la ci ñi nga xamante ni mokkal nañ ko ak digg puukarewoo ñi nga xam ni ñoo nekkoon booba ci bopp nit ñi ñu leen di wone ay seen nit dañoo àndoon nag nit ñi leen toppoon jëm seen bakkan ak seen bànneex wala jëmale leen ci yàlla ak yonentam bokk na ci misaal yi nga xamante ni ba ñu ko joxee te ñu joxe woon ko rek ci talaata bi ñu génne di topp talaata bi ñu wees rek bokkoon na ci ñi nga xamante ni fekkoon nañu di ko def alxuraanul karim nit bu ma saa jàng alxuraan ba mokkal daanaka ci ak col ci lañ koy xame ak mbaxal mu rëy maam laar bu gudd di ma dem daan kii ku mokkal alxuraan la fu mu dem di ko màggal ak di ko war a mu di ko puukaroo ci ñi muy nekkal daara dalit kaanu yi su ma ko daal faan dem ci mën a kaanu ñu ko yàkkal ma ci misaal day ñëw ci daara ji kaanu yi seet ki mu gën a wóolu ci dongo yi mu bind loo ko ndongo wala lu jëmal su ko bindee ba noppi kaanu yi ñu ko gën a yi di ko seet di ko topp kaanu ko seet di ko topp war a topp te mun soo si su ko toppee ba gis am yàq kaanu yi tamit buy ñëw mabal mu bëy lay àndal ñu ànd ñu yore ay ndënd ak i tama ñu toog xoolee ba gis am yàq bopp xalima gi lay yéey sëpp ko ci daaje yëngal ko kurusee ko yàq bi di leen maas ko la wala wax maas ko sàdd la wala loo ko wala lu mu doon rek ko defee baal yi mu koy teg ndënd yi da koy daal di aw day wax ni bu ko defee yàq fa péeru nga maanaam mooy daanu nga daal del bind gertu maanaam booy bind ci del jël téere bi di ko dem nii ci sa kanam ci kaw ajuwa ji di bind ñooy bind di gertu wala bu fekkente ni mënoo di bind di gerte yi bëri bu pare di ngeen nga dëkk na xam nga péeloo nga day bind gerte baa nga dëkk na xam su ko defee borom dënd yi yëkkatee noonu doo ko seetloo day daal di nekk ak sa mën gu rëy taxum su ko defee kooku am gàcce am garso mu jàll ca keneen noonu it ñu leen daan def di ko tawkalaale di dem ci dëkk diw yow la ñuy dara si bu ñëwee fitnaan la teg lay coono ànd ak nit ñi du jeex nga war leen a berndeel te fekk dara yoroo ko dugal ci naqar ak tiis boo xamante ni kenn mënu ko misaal xam daal li mu fekkoon nit ñi doon ko defee alxuraan daal jégg na dayoo ak yeneen xeet yu bare bare ñu néew néew daal ñoo ci nekkoon ci ak sellal ñi nga xamante ne ay sëriñ lañ woon ànd toolu woon ak nit ñi nga yàlla waaye dañ leen àndoon jëmale leen ci seen bakkan ak ci seen bànneex nga xam ni te topp xamatul li muy topp lu mu te ñu topp sax xamatul li tax ñu di ko topp bu ñu seetloo bu baax nag te seetantal jamono bi ñu nekk foofee sëriñ Tuubaa fekkoon jamono mën na nga wax la yegg si nag ndax nit ñi boo seetloo aada rek la ñuy toppi nit benn ci aw sant doon te sant loolu mbàtte la waaye illaa fii la sama bàyyi nekkoon te boo seetlu alxuraan boole yonent yi ñëw innaa wajadnaa aabaa'ana alaa ummatin wa innaa alaa aasaarihim lamuqtadoon yonent bi ma sa wax rek lañ koy wax ne yow kat dañ ñu mën a dénnu ci li ñuy suñu bàyyi nekkoon ak li ñu nekkoon suñu bàyyi yàlla ñu tamit loolu liñ dem bi waaye nag ñu ne loolu seen bakkan dañ koy dara te fekk du doon dund ba ñu seetloo jamono bii ñi ñuy topp ñu ci bari xamuñu sax li tax nit ñi di leen topp waaye ñuy toppee ñu ci ëpp xamuñu li tax ñuy topp doomu aadama te loolu loolu léegi ma dara ràññee la ndax nit ki lépp loo xamante ni bëgg na kaa am jariñu àdduna ak àllaaxira war naa gëstu bu baax ba dafay sóobu lii mu doon jiital ci ak xam-xamam ak ma xelam ndax mooy tax mu mën caa jàng ndax boo seetloo léegi taalibe yu bare bare bare boo waxee ñu ne sëñ diw rek mooy sama sëñ loolu daal la ñuy doy loolu yëpp lu naan sëñ diw sama sëñ waaye mën naa ànd ak sëñ bi fukki at ñaar fukk ba fanweeri at yoo xamante ni du gestu mukk sëñ bi ne ko noo defal julli juróom noo def ak asaka sax mbaa yaa ngi génn asaka wala mbaa yaa ngi woor wala mbaa yaa ngi ak màkk su dee ku ko mën la doo seet mukk na sëriñ bi benn ponk ci ponk ci islam yooyu dana ko yittewoo mukk ci njabootam ko jël waaye daal boo ko seetloo la cay nekk yitteem daal bu koor jotee mu laaj su guddi koor su tabaski jotee mu laaj tabaski su màggal day jub mais màggal na wala gàmm na ci yeneen yoon yi wala leen sëriñ sëpp rek nga ba tax di wax waxuma waxee ma ci yoon bi ma nekk rek waaye nag ñun ñëpp daal lañu yittewu mooy li ñuy am ci su tabaski jotee mu laaj tabaski su màggal day jub mais màggal na wala gàmm na ci yeneen yoon yi wala leen sëriñ sëpp rek nga ba tax di wax waxuma waxee ma ci yoon bi ma nekk rek waaye nag ñun ñëpp daal lañu yittewu mooy li ñuy am ci seen taalibe ak li mu leen di jox ñu ngi tabax kër sàngam ñu ngi tabax nangam waaye daanaka lu néew néew ngay dégg sax koy woote di tabax daara bu ñuy jànge wala mën a noonu waaye lépp da ngay am ci taalibe bi daal moom la ñu yittewoo waaye yittewoo li leen war seen diggante taalibe bi mooy xamal ko lislaam xamal ko boromam teg ko ci siraatal mustaqima ngir mën a mu ci tax làq ngir ma suñu borom la gën a kawe te Sëriñ Tuubaa daana wax ne képp ku nit ñi jublu ko ànd nit ñi jublu yàlla su ngeen faatoo yéen ñëpp suñu borom dugg leen aljanna waaye ku nit ñi jublu ko ànd ñoom duñ ci sa bopp yi bu ngeen faatoo yéen ñëpp suñu borom dugg leen sawara wala yasubillah mooy tax foofee sëriñ bi fekkoon jamono jamono yi islam dafa ndax tey ni ñuy tuddee ay sëriñ bu ñu doon téeméer lañ dañuy wax ne juróom rek ñoo ci nekk ca la leen war ñu jéem a gëstu ba xam it seen njaboot nga nga ca wala déet ñu fi def ñëpp la leen yitteel ci lu jege ak seen sori mooy la ñuy amee ci teel bi nii waxtu noonu seen bakkan lañ koy teg teel bi mel ni ñoom itam xamuñu ni kat sëriñ bi daf leen a war a dugal war leen a rek ci siraatal mustaqima maanaam moom ci nekkee moom waaye ñoom itam yaakaar nañ ne sas yooyu rek moom la ñuy puukaloo ak lay tamit ñu di bind di leen laaj man de teg naa man de joxe naa defar naa sëñ bi lii waaye bu ñu xool mukk ni ñoom it am na loo xamante ni sëñ bi war na ko ñoom muy teg leen teg leen ci siraatal mustaqima danaa bokk ci nekkee nga xam ne lu mel ni màggal wala gàmm seen mën a yooyu yëpp ci adduna rek lañ koy jëmale waat activité adduna yi waaye am fi lenn loo xam ne dañ koy wooteel yàlla waaye boote demee doo fekk dara rek suñu borom subhanahu wa taala màggal mën naa ñëw ba jàll nga dem siyaare bi sa sëriñ ba jóge ko waaye dem toq bu lay delloo ci yàlla doo ko fa dégg doo ko fa gis te loolu lépp lu ma a bàyyi xel la ndax sëriñ bi daan wax ni ak dégg bu leen koy bëggee bu leen bëggee lépp ki leen koy jox waaye dañu ko delloo ci yàlla ba ay dox wàññam di dund nga xam ne mboolem moom la mu doon jàngale sonnoon ci tegoon ci bakkanam dafa mel ni loolu lépp dañ koo fàtte gas ko suul nekkaat ci aada yi nga xamante ni jële leen fekkoon ba jële woon leen ci lu delluwaat ci loola nga xam ne léegi daa mel ni ñi ci biir kër gi ñooy takkal kër gi sëñ bi bu maanaam setal na kër gi ba mu set wicc mu mel ni nag lañuy tibbaat mbalit ma di tuuraat ci biir kër gi te yëguñu ko seetlu ñu setantaluñ ko te loolu nekk lu mat a bàyyi xel màggal bu jotee wala may na xew bu ma di doon tey bi moom li ñuy xëntoo mooy jox naa sëñ bi loxo nuyu naa ko rang gi gudd lool ku nekk xat-xat loo ko waaye mën nga faa def bu jëge buñ la laajee lan nga fa dolli ko ci wàllu diine doo ko mën a doon benn baat loolu it ku ne war na ko daw ndax nit ki booy wut ko wéeru dafa war a nekk koo xamante ni jëmm mooy jëfam ak kàddoom lépp daf lay fàttali suñu borom subhanahu wa taala yooyu yëpp nag kon nga xam ne sëñ bi fa mu fekkoon jamono génn leen ci war nañ ko delloo seen bopp te yëguñu ko lépp rek ñu ngi ko teg ci aada nga xam ni tey boo demoon yooyu yëpp ñu dana ñëw ci ci téere bi boo demoon tey ba suñ borom dimbali la defal la taw fee nga dajeeg jumb joo xamante ni mën na laa teg siraatal mustaqima it boo dem ba di ko jubli kàddu bi nga dem ko dégg suul ku dëgër te muñ li nga xamante ni ña ko njëkkoon a dox melo woowee lañ xam woon daanaka mën ngaa nekk ku yeefus wala nga yox yoxe bala nga bëgg doo ko am kon loolu lépp nekk lu ma bàyyi xel téere bi dara joo xam ne Masaalikul Jinaan mu teel leen ko ñu leeral yoon bi nga xamante ni ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ak saxaaba yi ak mboolem ñu ñëwoon seen gannaaw te tegewoon ci siraatal mustaqiim ngir ñu mu jamononteeloon te dem ba fàtte yooyu yëpp yoonoo fàtte ba kenn jaarut fi ñu nekk ci seeni aada ak seen bakkan ak seen bànneex mu mën leen a wanaatal yoon yi leeral ko ba mu leer nañ ñu ba ci ku ca bëgg a sëw mën caa jaar te yoon woowu ñu nag ba tey rek du fi gën mukk képp ku ci sëw bi ñu ni ko waxee léegi te dëpp taxul gëstoo da nga yëngu ci yàlla lépp loo bëgg it adduna ak alaaxira si loolu subhaanahu wa taala dana la defal tawfiq ndax liram bi yow baabu laa man yàqu moom sa daa buntu suñ borom bi tëjuwul mukk fexeel bala nga koy sóobu nag mënta la sart yi ndax bu ñu fàtte ne sëriñ bi bi ñuy ñëw ñu ngi tudd ay sëriñ ñu ngi yoon ndax boo seetloo ni ko jotalee tubaab bi bari na ci lool ci ñoom ñoo ñu dama yëkkoo ak ci ceeb yi ndax buur yi lañ nekkoon ak sëriñ si buur yi ñu leen toppoon ba tax ñu leen di wax ay buur ñu fi bari ñu ngi leen doon wan gannaaw di jëm ci sëriñ Tuubaa bi ñoom mission bi jant tukki ngeen ak taw fee xam tur ngeen yërmande sëriñ si it ñi leen toppoon it ñu ci bari bi ñu seen jant bi yërmande boobu yi ak njëggale taw fee xam barke ak suñu borom boobu yi ñoom ñëpp da nga xam ne dëpp di ko dëgmal ñaar ñooñu ñëpp muy ceddo yi ak sëriñ si fi nekkoon kenn ku ci nekk gis ni kii kët lii mu tàmbali bu tëdd ak kanam dootuñu doonati dara ci la boole bi ak kalaama yi nag bari lool loolu mooy sababu saayiru ak génnam sababu baatin bi mooy ni mu ko waxale boppam mooy ndax loolu ko dawal na ko bàyyi xel képp ku jóg ngir teg nit ñi di siraatal mustaqima nit ñi ñaare su jamono dikkee ci la bari tamit faaw am lu mu leen fekk bu nekk sax waaw ñooñee nit ñi doon gannaaw nag loolee bu leen gënal mukk ba tax na kàddu yu ne ba leen ñu faral di yëkkati di ko jëmale ci jëmm joojee loolu nag ñuy njub di xentu njub war nañu seet ak di seetantal mi leen njëkkoon la ñu jànkuwanteel ak la ñu bañoon ak la leen yàlla jaraloon ndax sëriñ bi ñu ko di ko topp loolu nag ñu ko waaye liñ daan wax ni saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine daana gis koo xamante ni daana jël fii xar ci bopp di ci teg ko ci boppam da dagg ko ñaari gaal dagg tax mukk mu dellu gannaaw ca la nekk boo seetloo ko mel ni bilaal mbugal ñu ko doon mbugal ni mu tawee waaye mu sedd nag axaat axaat suñu borom kenn la nga gis xamaar umayya nga xamante ni mooy wayjur xamaar ibn yaasir ndeyam moom lañ njëkk a rey ci lislaam te boo ko seetloo rey mu ñaaw lañ ko rey te moom day jigéen la waaye ab xeer lañu bëgg ci biiram waaye taxul mu dellu gannaaw mukk ngëmam googee la faatuwaale muy ji yàlla borom subhanahu wa taala ndax dee ku ne dana ci jaar mënta ragal dee ma mënta ñàkk dee léegi ak dee suba fexeel ba booy dee dee ci dëkk loolu la ak julli dëkk war a def waaye dee moom xalaat bu ne xale ku ne rek dana fi bàyyi ko waaye ñoom faatu léegi dem dëkkaale ak seen borom moo leen gënal di jóge ci di wedd yàlla te lu du la tee dee te boo dee dugg ci naqar ak ci seen mbugal moo dul jógee ci mukk loolu dara jëru ko mooy tax daana gis ku nu jàpp ba teg ko ci wetu buur ci ci seen wet ñoom yéefar yi wala kay wedd yàlla te bëgg nit ñi jublu ca jublu ko daana gis borom ngëm gu dëgër boo xam daf koy wax ni nga rey ma léegi ma nekk shahid martyr dem dëkkaale léegi sama borom moo ma gënal ci sax dund ci kaw suuf nga xam ni ñoom yàlla moo leen gënaloon seen bopp gënaloon leen seen alal gënaloon leen seen jabar kon képp ku ñëw war a suuf bi ci yoon woowu war ngaa bàyyi xel nga nekk njëkkoon la nga daloon ak fan jaaroon nga nafal ko ba xam ko suubu ci yoon woowee bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman faman kaana yarju liqaa rabbihi falyaxmal xamalan saalihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada allahu rabbi wala ushriku bihi shay'an ولا حول ولا قوة إلا به اللهم اجعلنا من المتقين الذين تتقبل منه ولا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا تحرم أجر حسن تأليف ولا أجر خير بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mu ubbi ko ci aay bi mujj ci sóoru kaf bi képp koo xamante ni am nga ko lu téef ni ëllëg da nga dajeeg sa borom ba jàpp ne yow rek la ñu doon sa juróom-ñaari cër yi fi nga sunkoo ba fi sa bopp jànkal ko sa jëmm lépp loolu dama sale ñu seere ko ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala na nga yéene ak yiw di wax ak yiw di jëf ak yiw te sax jaamu bu ngay jaamu sa borom na yàlla rek tax bu ko nit ñi jaamoo nekk sax bu ko nit ñi jaamooti nekk sax na nga ko sellal muy wéet ak muy wéet lu ko muy guddi muy bëccëg lépp looy jëf na yàlla rek tax bul bokkaale yàlla ci jëmum ak ci jëfum waaye bul ko bokkaale ci jaamu bi nga koy jaamu ak kenn wala lenn mu ne man day sant yàlla allah mooy sama borom lu bind te melam na te kàttanam la duma ko bokkaale lenn wala kenn ci mel ni mbir mu mën di doon amul menn pexe wala genn kàttan ci lu dul suñu borom bi subhanahu wa taala yow sunu borom nanga ñu def ci ñu bokk ci ñi nga xam ne danañ sangi seen xol ci lépp loo gërëmut sangi seen kanam ci lépp loo gërëmut sangi seen cëri ci lépp loo gërëmut muy ñi nga xamante ni danga leen nangul seen yiw ci pas-pas ci kàddu ci def muy ñu def mukk ñu bokk ci ñi nga xamante ni sànq nañ seen i pas-pas ak seen i kàddu seen i jëf noo ci dundu adduna ko gàtt gi te ñàkk solo tey jànt te lépp lu fiy yëkkati ko di suufee lu fiy dund di dee lu fiy toll di wow lu fi ne tax di am ñu boole ca nag njot ni ña ngay rafetal seen jëf bu ñu xañ mukk yoolu téere bi ñu jiitukee ci yiw bu màgg te kawe bu ñu ko xañ mukk waaye bu ñu xañ yoolu beneen téere bu dul moom ci dara di rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaaral ma saytu saytu bàcc yu Ahmadu agafalahu xayral zinaani samadu wax na di doomu sëriñam jamono bu muy taalif téere bi si Mor Anta Sali way juróom moo nekkoon sëriñam yàlla na ko suñu borom subhanahu wa taala tàbbal ñu gën ci àjjana muy jannatul firdawsi moom mi nga xamante ne ñëpp yi tuwoo woon jëm ci moom te yi tuwoo jëm ci kenn muy kilifa ñëpp di suñu borom subhanahu wa taala maa jamiihi al-muslimiina al-muxlisiin wa kulli man faasa bi ixlaasi amin na nga ko dugal ngeen gi àjjana ànd boole ko képp ko joxe boppam tamit dëgg ci moom muy ko képp ko jub jullit boole ca sellal ak képp koo xamante ni taxe na ci sellal pas-pas ma kàddoom ak jëfam yàlla na suñu borom nangu ñaan alhamdulillahi alladi minna talab ixlaasa sahyin wa muraaxatal adab noo ngi sant suñu borom mi nga xam ne moo sàkk ci noonu ñu sellal suñuy pas-pas ak suñuy kàddu ak suñuy jëf boole ca sàmmante ji ay tey dañ suñu digganteeg moom ak suñu digganteeg suñuy morom tey dañ suñu digganteeg suñu borom mooy jëfe lu mu digal ca teet lu mu tere te lépp lu mu dogal ci noonu lu gërëm ko suñu digganteeg suñu morom bu ñu ñaawal suñu pas-pas jëmale ci kenn wala ñu ñaawal suñu kàddu jëmale ci kenn wala ñu ñaawal suñu jëf jëmale ci kenn buñ ko mënoon a tënk donte am na ay saraa yu bari man mooy ka nga xam ne man yan surul xulooba wa saraira doona léegi mi naa yakun taahira suñ borom mooy ki nga xam ne suñuy xol rek lay xool ni ko yonent bi waxee ne suñ borom day du xool ci seeni alal wala ci seeni melo waaye ci seeni xol ak ci seeni jëf lay xool mooy ki nga xamante ni moom suñ borom bi subhanahu wa taala mooy kii xool suñuy xol ak ñu nëbb yi waret la nga xamante ni lu feeñ la ci noonu kon jaam bi li nga xamee ne fu mu toll mu ngi sellal ay aw yaramam di ko diw di diw karamam di sangu ba set di setal ay séram ba bu génnee ñu mën koo xool li nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala di xool ci moom mooy xolam war na koo sellal bu baax bépp pas-pas boo xamante ni suñu borom bi subhanahu wa taala gërëma ko loolu lépp nag seen bi dana ko andi ci biir téere bi kon xooluwaayu suñ borom bi bi moom la nit ki war a gën a yittewoo ci setal ko walis li nga xamante ni moom la doomu aadama yi di xool ci moom tumma talaatu mahsalaamin yatbaxu xalali si dinaa xadami safaaw mucc xéewal ak mucc goog danañu àndaloo danañu toftaloo yàlla nekk ci ki nga xamante ni ëllëg def na ko ràmmloo ci noonu muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man bil fadaa'il huda taxallaa wa an rasaa'il radaa taqallaa mooy ki nga xamante ni takkaayoon na mbooleem gëneel yi jub waaye nag noonu it ñu la léttikoo ci mbooleem xeeti caay-caay yi mën a alal nit ci àdduna ci alaaxira Muhammadal kaatibi xannal qumma wa alihi wa sahbihi wal umma mooy ki nga xamante ni mooy aw solo mooy Muhammad mooy aji bi ñu ci ñun mbooleem jàqale àdduna ak alaaxira kon mucc ak xewal yàlla nekk ci moom ak ñoom ak saxaabam ak mboolem xeet yëpp maa xaafa man yukaadibu shaytaana wa nafsuhu maa alxawaari sinaana li fekk nag ki nga xamante ni dañ di jànkonteeg shaytaane mi nga xam ni du dañ ci di ko xéer ci saxaan ci bas-bas ci kàddu ci jëf fépp jëmm ji nga xamante ni dañ di jànkonteeg moom di xeex ak moom di bëri moom di jihaad ak bakkanam di jihaad ak shaytaane ba li mu koy xëy lépp mu xam ne seytaan bëggul lenn lu may boole ko fi ñu koy wékki ëllëg ca safara kooku yi nga xamante ne ñu ngi sax ci di daal konteeg seytaane di bëri bakkanam ak bànneex fu mu toll ngir wan ngeen gannaaw xam ne yooyu yëpp amul solo te dund bi lu gàtt la te bu ko ñàkkee du ko amati mukk bu fexe ba dundam yëpp mu jébbal ko boromam seytaan amutoo yoon bakkan amutoo yoon bànneex amutoo yoon adduna amutoo yoon kooku ci feeñ mu ngi làkk aljana mucc ak xibaar yàlla nekk ci yàlla moom dañ di nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoom wanaa man yutaxfeewul janaana min al yamin nuura wa ridwaana te mu am it képp koo xamante ni ñu ngi jéem a sellal xolam ci lépp lu suñ borom subhanahu wa taala gërëmut muy luy jàpp ñu yamin kenn wala añaan suñ borom set te ci jaamam xéewal nga di ko añaane xéew nga ñëw ci mu leen wala ngay ngistal di jëf ngir nit ñi wala ngay jëf ba noppi bëgg ni di ko tudd wala ngay jëf ba noppi jëm di ko wax lépp loo xamante ni suñ borom gërëm nga ci pas-pas kay taxaw ngir sàllal loole ca falam ci bépp ulit di fekk kootee ñu ngi làkk leer buy bàyyi góor ci jamono te xalorati mu war a am leen fekk mu ngi sotti ko ci ruuxam ak mbiram ak yàlla yàlla na xëyal bi mucc di nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa daama man lam yaltafit lil xalqi yaxmil usula lillahi xaq te mu sax li feet ki nga xamante ni suuf la joolu yàlla dëpp taxaw gëstu suñu di jëfee mu jëf suñu jëfee mu jëf lam nekk wéet ca moom dong ak ñëpp fekk ko ca ñoom la yemale képp kon kii suubu joolu yàlla li feet mu ngi amee woowu meloo te meloo képp ko ko amee faw mu làq ak yegg ci yàlla mi nga xamante ni mooy bu dëgg ko loolu feeg ñu ngi am mucc ak tawal yàlla nekk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa baxdu fa tawxidu lil qismayni man xasimun fa saara tawxidayni gannaaw bi nag tawxid dafa mel ni dañ koo xaaj ñaari xaaj ba mujj nekk ñaari tawxid ci maanaam fa awalu takallumun rabaani taxarufun la tunkiran bayaani bu njëkk bi lu ñuy waxal ci aw làmmiñ waaye bi ci des dañ koy yëg xam ko xamu xol bu ànd ak yàq yi mu ne la bul wedd yi beneen bii ma beneen wa zaaka lil humam yunsabu kama kaana ila al xusuusi saaxan kama bu njëkk bi muy takallum tawxid bi nga xamante ni lu ñuy wax la boobu moom lu matale la ñëpp waaye nag taxaruf mooy xam yàlla dëgg dëgg xam yàlla ci sa xol xam ko ànd ak yàq yi loolu moom seen borom subhanahu wa taala moo ko jagleel ko ko soob wa saahibul umam ma taqaddama kalaamuna fi kitaab al-mujma li nga xamante ni bu matala la mooy li nga xamante ni jiitu woon na ñu waxoon ci ci téere boo xamante ni téere bu ñu wala la muy mawaahibul xudus mawaahibul xudus tawxiid lay jàngale waaye tawxiid li yàlla suñu borom loo xamante ni luñ mën a wax la moom la wa huwa alladi nasarahu sannoosi sibtu rasuli rabbina al-qudus kuy wax sannoosi mooy ko ko weesaroon Sëriñ Tuuba jël ko way ko muy ma waay ko ko des salaa sallama ilaa huwa rabbi alayhi hama hadda kulli xarabi suñu borom mu ca xéewalam yàlla nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu lépp mooy daal muy lépp la am rek am na la fi xawal xusuus furxuma naati bi ay doon anam mun dalima li nga xamante ni nag moo làq ak jagoo nga xamante ni suñu borom moo koy jagleel képp ku ko sol mu ni danañ ko indi fii moom itamit mu nekk lu ñu woy wajadtuhu xat sallafa al axbaaru fii dafaatira laha asraaru fekkoon naa nag fuura yi nga xamante ni borom xam-xam la ñoom xam-xamu zaahir ak baatin xamal aqiqa ak sharia ñu teel ci ay téere yu bare bare bari yoo xamante ni téere yooyu làq na ay secret كضيفنا نجدد القضايا ومن عطاء الله في المعالي nit sunu sëriñ mujaddid te nekkoon mujaddid ku doon yeesal lislaam muy Muhammad Xasali Xasali bokk na ci téere yi nga xamante ni taalif na ko li ci gën a siiw mooy Ihyaa Uluumi Diin nga xamante ni mboolem xam-xamu diine diine lislaam sharia ak xaqiqa lépp dajale na ko ci Ihyaa Uluumi Diin bokk na ci téere yi mu taalif yëpp am na téere bi nga xam ne war a saay def na ci ci biir ma ci war a saay tey ci téere yu bare bare bare bare bare yéen ñu tax bi daay tuddee daay mën a ajum xaabi jéem yooyu yëpp imaam Xasaali mooy ki ko def imaam Xasaali moom itamit mosoon nañ fay dund moom bi ma jàngee ba nga xamante ni li nga xam lépp xam na ko nekkoon ku daan jàngale ci université bu ko fa daal foofu la ko leer suñu borom feeñoo mu wan gannaaw loolu lépp su suubu ci yoon yàlla ñu ko tàmbalee tàmbali di gëstu ba yedd ci xam-xam bi ñuy wax maxrifa xam ci day ko xam fekk na lépp lu nit doon xamit jaar na ko ba xam ko ni mu ko waxale boppam ne fu mu doon rek lépp lu mu doon rek gëstu na ko ba xam ko fatt gerte sax ci misaal bu ko gisoon mu këpp dana ko kuppér ñi ba xam lan moo nekk ci biir fatt gerte woowee ci misaal rek lépp lu nit làmboo rek ci wàllu xam-xam jaar na ko ci falsafa xeeti xam-xam yépp jaar na ci ak ku mel ni ibnu xataa ilaahi moo def téere bi nga xikam am na ku ko saraa tudde ko ixaasul ximam ibnu xataa ilaahi def na téere yu bare bare bare moom itamit wa sayxinal kunti fil amwaari xawsul wara xobbi raxal moxtaari ak sunu sëriñ bi nga wax si jël moxtaar kunti yi mu mag ma ki nga xamante ni ku doon fekk li mu defi la woon te nekkoon kilifa yi xutbaan ya mataw xutbaan yi suñu borom defal na ko ci moom ku ñu tànn la woon وشيخنا الخليفة المؤيد بالحق من رب على محمد كل محمد خليفة كل دقر لون دق كباري كل سن برم سبحانه وتعالى من من نب لا يغفر لهم ذنب الله كتنون التوفيق من لا رب لكم بنت من الجمال التوفيق وشيخنا مفسر القرآن محمد محمد المنزل الديماني كنا له محمد الديماني waxee min al masaayix al imaam jamaxana allah bi mu yomal xiyaam ak ñeneen ñi ñi mu tudd it ci sëriñ su màgg si nga xamante ni doon nañ taxawee ci toolu lislaam bi suñ borom defoon la buñ ci yemaay leen buñ suñu gërëm buñ ci taw xam yàlla na suñu borom subhanahu wa taala dajale te ñoom ñoo ñuy ëllëg yomal xiyaam laakin nama kutubuhum lépp wali shahida fiha billaha sa jili seen téer nag gudd gum gudd tax na maas ji ñu ci bari du ñu ko jàng du ñu ko yër du ñu ko seet ndax iyaaw loolu diin boo ko doon xool ñeenti téere yu toll nii téere bi ma téye nii daal ñeenti mu sellat la boo rasee footu foto bi téere la boo xamante ni moo ëpp bi ñu amee fopp téere yooyu boo ci xool rek téere bu gudd a gudd a gudd la waaye nag fax takk suuf ci xaamate bi bil waali lazima li fi nasrahu yazaali waaye nag tànn naa may borom dimbali ko ci ki nga xamante ni mooy suñu borom bi subhanahu wa taala waaye li nga xamante ni Muhammadu yazaali yi moo ko wesaroon ngir moom sëriñ bi mooy ko li jëm yi jami xamaali salafi bi kaw ni xaatimata tasawufi ngir loolu yi nga xamante ni Muhammadu yazaali yi wesaroon na ko dajale na mboolem ñi nga xamante ni ñoo njëkkoon te sóoboon ci yoon wi leeral nañ yoon wi ak ba képp ku ci bëgg a sóob man cee jaar mooy li ñu ci bindoon lépp maanaam Muhammad Yazali yi moom yi dajale na ko maanaam résumé na ko ci gàttal ci benn wesar moo tax sëñ bi ci jël wesar woowee ngir taarif ko muy Masaalikul Jinaan fa juftu fii bi kitaabin qad xabaa shifaa aman asqama qalbu hawa mu indi ko nag def ko muy téere boo xamante ni làq na saafara képp koo xamante ni bànneex topp sa bakkan ak sa bànneex tax na sa xol vàng ba du fàttaliku boroomam du teewlu boroomam leeru boroomam nekku ci du ko yëpp ci lu jóge ak ci lu sori téere yi soo ko jàngee te jëfe ko mboolem ràng-ràng xol yooyu ak tawati xol yooyu nga xamante ni mooy liy gàllankoor bi ci raay liy dox digganteem jaam bi ak boroomam ba du ko yëpp ràng boobu yi dana dem ba sa dugg nasman yarmu xaala kulli muqtadi wa xaala muntahin isaalam yaxsudi muy way woo xam ne dana yëwénal mbirum képp kuy door tàmbali muy kii door sóobu ci yoon wi dana yëwénal seen mbir waaye nag képp koo xamante ni dem na ba yegg ci yàlla yi dana ko mën a jariñoo su fekkante ni nekkul ko añaan isul xasuudu laysa samtifaahi bi fadli man xaasara bi tabaahi ndax ku añaankat du jariñu ci ngëneelal ki jamononte ak moom ci war koo topp ngir mën a jariñu ci la ko suñu borom bi subhanahu wa taala jox ku añaane ba tey wala yusuuhu mabal alxamaane suwa halaakihi bila tawaani ci añaane du ko bégloo diirub jamono mukk ci ki mu añaane du ko yéene lu dul ak takande lu dul def ni yaa kon ahasana allah min alxasuudi wa kulli muqimin wasi fi wadi yàlla na suñu borom bokk musal ñu ñëpp ci ay aji añaan ak aji képp kuy noonu ak aji képp kuy mbañ nit ci dëgg ko ci dëgg ak ay tëb ku yedd ay tëb ku yedd ahyaytu fiihi ma amaatahu wala min alxulumi isxaraahum kara dund na ci téere bi da nga xamante ne mbindéef yi wayar nañ ko ci xeeti xam-xam yu màgg yooyu yu kawe yooyu ba nga xamante ni gëm nañ du dugg na leen muy topp bànneex ak adduna nii nga xamante ni kër gu ñàkk solo la ko doyali leen tey kër guy gent ñoom ñu mu war seen bët fàtte ni am na geneen kër gu nekk ci gannaaw ji te lii ak yoon la rek ku mu cay jëme te ku la dund ci beneen ko koy amee te boo ko ñàkkee duutoo ko mën a tey amati mukk bi ñu jàkkaar bi ñu xoolee nëtu adduna fàtte ni am na geneen kër gu nekk gannaaw kër gi ñu mu war seen bët fii loolee tax na ñu rey mbooleem xeeti xam-xam yooyu nga xamante ni mooy tax nit ki mën a sóobu ci yoon bi nga xamante ni moo koy mën a tax mu dëkkaaleeg borom ëllëg di dund dund bànneex ak tawfeex yëngul fenn laxal la ni uddi saa xaban bil xusna maxal yabaali bil maqadil asna ndax lee man kat suñu borom bi subhanahu wa taala fay ma ëllëg teraanga yu mag te kawe bokk na ca teraanga yu mag yi dafa dëkkal ko janal bi firdawsi ak defal ko tawfeex mu bokk ca ne jëlloo xar kanam suñu borom bu sell bi mu ànd ko yabaali yi nga xamante ni nag moo ko wesaloon ci saxawaay boobu gën a màgg ba bu gën a tedd ba bu gën a kawe ba mooy xin jamali ci moom tëdd dafa seen borom subhanahu wa taala waat lu bu daxwata min man nawara wa min mutaarifin fa ahraa man xaraa maa ngi sàkku ñaanit ci képp koo xamante ni dox na ba bëtam tëgg ci téere bi ak képp koo xamante ni yaa ngi koy yëngu nit di si jàng ci lenn rawatina nag ki koy jàng te di ko jëfe wa kullu man masara falya boxa lana dafay nu ma ay doxa li habdin ahsana képp koo xamante ni bëtam tegal ci téere bi nangu ñaanal man ak Muhammad yeegeer li moo nii gën gi loo xamante ni dee na ko ñaanal jaam bi nga xamante ni rafetal na digganteem ak boromam ak digganteem ak moromam isul duhaa yanfahu mayitan fil xubur wa yanfahul xayya wa yujibu ujur ndax ñaan kat dana jariñ am néew bi nekk ci biir bàmmeelam nga xamante ni jëfam dagg na mënatu fa jëfati lenn lu mu jëfatoon jiital ko ci biir bàmmeelam duutu ko mën a tey jëf mukk kooku nga xam dafa mel ne ko lakki ndox ñaan rek moo ko mën a suqali moo tax mu ne ñaan kat dana jariñ néew bi nekk ci biir bàmmeelam te fexeem jeex waaye dana jariñ it kiy dund ci kaw suuf dana war a nit am yoon ci ci ñaan samay tuxoo ma saalikal jinaani fi jamhima farraqo baymaani maa ngi tudd téere bi sóobu waaye aljanna ku ci sóobu te wàccoo ko ku ko jàng te jëfe ko da nga dugg aljanna ci ndigalul sunu borom ngir dajale leen mboole ñi nga xamante ni baymaan yi defoon na koy sar is kullu man nassa bihi fil qaatima jihtu bihi fi sol kitaabi naasima ndax lépp loo xamante ni yaxal na ko ci téere boobu ñu xaatima te tasawuf indi naa ko ci biir téere mu nekk lu ñu woy lépp lu mu koy far rek indi naa ko ci téere bi mu nekk lu mu may tomma ñu ne paxa bi fat axastu fawaidan biha lahu atmamtu am na benn téere bi wax sahabu ibris bu abdul asis dabaax jombut xëy na moom lañ tudd sëriñ abdul asis dabaax malik ku ñu abdul asis dabaax ab sëriñ la woon nitu yàlla la woon ku màgg takawe moo def sahabu ibris téere la bu doon wax ci wàllu tasawuf mu ni am na loo xamante ni jukkee naa ko ci téere boobee ci ay njariñ ngir ma mën a mott yi li ma jële ci xaatimatu tasawuf wóobi bu imaamu yagaani warul ko maa fii ashidu baxdama ah su li takmili min xëyrihima léeg-léeg danaa dolli ci téere bi loo xamante ni danaa ko ci jële ci yeneen téere yu ñaari téere yooyu nga xam ne xaatimatu tasawuf wala sawabu iblis ngir mott yi ba tey mu gën a mat gën a maan gën a kawe min kutubil xawmi ka ihyaai ulum ka ihyaai ulum wa junnatil muridi li rayfil karim ni ci jële naa yëpp ci téere yi nit ñu baax na min kutubil xawmi ñoom boo baat boobu suñ ko gisuñ ko muy xaw ma mooy nit yàlla yi nga xam te ni àll ci yàlla lañ ñu man sëkk lañ seen diggante ak seen borom te mën a yëngal di jàng ci ak nag sa ci téere bu mel ihyaa ulum diin luy misaal léegi ak junnatil muridi cheikh boobu cheikh Muxtaar Kunti yooyu moo ko def laakin idaa zakkar xaala bi damir faraajun ilaa xasaari sahir saa soo waxee ci téere bi ne xaala baatam xaala muy wax na rek na nga xamante ni imaamu Xasaali mu siiw moom mooy wax waxewul moom min haweelil qurbi wa saxrahul isma lahu bi dikri ku dul ñoom nag ci gaañoo yi nga xam ne ñoom ñëpp ay sang lañ danaa bëri lu turam ci digg ko ni diw ma wax waxee sama rakkat la fa xultu fawil naxari ni fawli naxamtu saa su ma nee xultu mu wax naa rek xamal ni man maa wax waaye nag ci maxanaam seeni wax ci laa tafale li wax ndax suñu borom subhanahu wa taala leer ji ni ñu ko waxee bi suñu sant leer ji duggee ci suñu borom subhanahu wa taala jëm ci yonent yonent yëpp jëm di jëmm leen boo doon seet alxuraan yonent yëpp jàmm kàddu lañ wax wéetal leen seen borom bi leen bind te moom leen moo gis leen ñu mu bind suuf wàcce leen fi dafa leen xéwale ci taraanga loo xamante ni kenn fekk ko ci kon na ngeen ko jaamu te wéetal ko ñëpp wéetal yàlla la ñuy wax ak rafetal seen diggante kon yonent yëpp benn lañ wax genn wax lañ dana ñëw di yoo xalaat wax ci njëkkoon rek yonent yëpp ku seen borom ma xalaatee nga teg nañ ci siraatal mustaqima bu ñu doxee tuuti ñaare doomu aadama suñu borom daf ko bindaloo xam ne dafa gaaw a fàtte al insaan mooy ko xam dafa gaaw a fàtte suñu borom bindee jur ñu dem fàttekat la day daal di indiwaat ko rek waaye kooku bu ñëw it yow nga koo cee nekkoon rek moom la yeesalaat boo seetloo mu jot bi suñ ko waxee bu ñëw moom la muy yees du ko indi waaye ñoo mu jiitu woon fan jaaroon rek foofu lañ jaaraat ndax lépp dana fi nekk waaye nag tënk ci nit ñi mooy lu jafe na ko fi mu wuute nit ñi fi fekk ci kaw suuf te buñ ay lu jafe mooy kàttanu leer bi suñu borom subhanahu wa taala def ci moom ba képp ku tënk ci ku topp ci gannaaw na ngay mën a matale ñu jëm suñu borom yi ak taw ñax gana su jaral suñu borom defal bu ko defal keneen mooy tax sëriñ bi li mu teel ci masal bi gënal ñëpp bi mu door a sos sax ci yoonu murid bi di ko yeesal téere yooyu ci la doon tànk ci la ko doon defee ndax lépp ngi fi alxuraan ñu ngi fi wax ñu baax ñun ñëpp ñu ngi fi waaye nit ñi ñooy dem woon gannaaw yooyu fi ci ko yeesal nit foofu rek lay tànkawaat ngir man ubbiwaat dem ñu ñu mën a dugg yàlla di ko xalaat di ko fàttali di ko sàmbaat ci bëri ak ci wàllu ci guddi ak ci bëccëg fokk lu ma fi saxiin usbita raxas si ni tànn bi si waas waasbita lépp lu nekk ci téere bi rek na nga xam ne lu mel la loo xamante ni saxaleef la loo xam ne kon nag na nga rafetal si jot yow da nga saxal ko wala yasudduka xanil xaboori kaw ni xasiran baaxin fii seen jigéen bu mu la bëgg ba mukk sama téere bii ban koo nangu ci nekk dafa nekk xëy na ku gàttu tànk ci marché yi xëy na jóogal ci réew yu bari li nga xamante ni ñu bari bala ñoo nangu ci ci njàng mi dañ naan fa njàng ñu naan réew sàngam la jàngee jàng réew sàngam jàng réew sàngam loolu yëpp bëgg la tey nga nangu sant bi wala yasudduka mala ayman an axfi kawni min as-sudan bu ma bëgg loo mucc ci sama téere bi nekk gi ma nekk ku ñuul ndax xëy na jamono boobu nit ñi ci ñu gën a naw mooy koo xamante am naar la wala arab la moom la ñuy gën a naw ci déglu waxam wala topp ay mbindam ak li nga naw is akramu ibaada inda allahi aksaruhum taqwan bil istibaari ndax ki nga xamante ni moo ëpp teraanga fa suñ borom subhanahu wa taala ëpp tawfeex suñ borom di ko teral ëllëg ëpp ak ragal yàlla mooy ki gënoon a sanga xelam ak kàddoom ak jëfam ci li suñu borom subhanahu wa taala gërëm gërëmut mooy tax kon inna akramakum inda allahi atqaykum falaysa min sawaadil jismi safahatal fataa wa su'al fahmi maanaam du waral mukk dër bu ñuul nit ki sab dër ñuul du tax nga ñàkk dégg wala nga ñàkk xam déedéet waaye suñ borom mooy def leeral ak tawfeex ak barke ci jum du ko soob moo xam ku weex la wala ku ñuul la wala mag la wala ndaw la wala tadax nabam ya yaa nabiyu li xadami tibaahi ma aqul bul bàyyi mukk sama woy yow mi nga xamante ni borom xel nga ngeen ñàkk a topp li nga xamante ni danaa koy wax wala tuqassis qad la rabbin qad xalaa bi suy taqaddumin faqad faatis xalaa bul nga dee lépp ngënamal yàlla ngënalal yàlla ne li nga xamante ni lu kawe la te suñ borom dana ko jox ku ko soob bul yaakaar ni ñu njëkkoon dëkk ñoom la ko suñ borom jox ñu mujj am ñu dara déedéet ndax képp koo xamante ni jóg na ci sa ndoorte ngay tàmbali di woote nit ñi di leen jëmal ci yàlla ñaare nit ñi danañ di aada woo ña ngay fekk ña fa ngay fekk nit ñi di di leen woo li mu tënkoon dañ yaakaar ne moom lu baax moom li njëkk ña rek ñoom la ko suñ borom def kenn du mën a tudd ñoo ba mel ni ñooñu moo tax mu ne ba nag bul jóg leen gën leen yàlla lu màgg dafa taxaw ñu njëkkoon rek ndax loolu kat boo ko defee da nga nekk kuréel mu ni bul jagleel ngëneenal yàlla lu màgg te kawe ñu jiitu woon rek kon nga nekk kuréel isrub ba ma nu fatan moo xaraa naa faaba xam man qablahu wa xasba ndax suñu borom day mën naa defal tawféex ci mujj dikk tawféex yu màgg te kawe loo xam ne def suñu ko woon ñu ko jëkkoon tey lu leen jafewoon la ak ñooñu lu màgg màgg rek suñu borom mën naa defal ci mujj noonu tawfeex yu mag dafa kawe loo xam ci defuñu ko woon ñoo ne ko njëkkoon te loolee lu jotoon na ci ñoom fa toll xat yëpp dem amaana wab li wala fadlu li waadi laa li toll ndax mose yi taw boo xamante ni taw wicc wicc la mooy njëkk a tàmbali bu bu xiiwee ba xiiwu sàppi ñaari bopp yu sew yooyu ñuy njëkk mu ni yokk yi sa wéy dama naa njëkk waaye ngënoon nag ñeen la waan li nga xamante ni mooy topp te gannaaw taw machine bi waaye taw machine boobu rek bu ca yemoon baykat yi lañ bëgg duñ ko am loolu da caa misaal ni ci mu démoon suñu borom mën na koo defal tawfeex yoo xamante ni defuñu ko woon ñu njëkkoon loolu nag day gaañ ñu bare bare bare yonent yi boo seetloo ñun ñëpp yonent yi machine bi bu demee yonent day dikkaat ñu koy njëkk gën a indil ay jafe-jafe mooy nga toppoon yonent yi ba mu wutu moom boo seetlu wutu yàlla yi ku ci ñëwut ñeneen gën a indi ay jafe-jafe mooy njabootu wutu yàlla ci nga wutu yow tamit dañu ndax ñoom ñëpp ku ci ne day fas ni keneen ñëwut ci dikk ku ne mu ci ñëkkoon fala tanaasa ay na suñuy def benn na saxabi si ummati kalmati bul fàtte fàtte mukk waxtu yi nga xamante ni yaa ngi bëgg a xeeb sama woy yonente bi xaddis boobu mu wax ni sama xayru lay dafa mel ni ab taw xamuñ jëngañ jëggal wala muñ ci nasantuxoo nasixatal ixwaani arjo baha rabamaha ladar rahmaani waaye naa téere ñu ne ngir laa jëre ci mbokki jullit ñëpp te yàlla rek tax may yaakaar na ci boobu yi laa jëre làq ci ngërëmal suñ borom bi subhanahu wa taala wallahu rabbi ak kadi wa huwa alkarim taqabbal al ahmali minna wa arum maa ngi dagaan ci yàlla li nga xamante ne mooy sama borom mooy bind te moom ma te melal ma te mooy aji tedd mu nangul mbooleem suñuy jëf te li ñuy sàkk ci moom maa ngi sàkk ci moom it kofraanu walutoo borxma xana waxam na di suñu umma maa ngi sàkk ci borom it jéggalam ci suñuy pas-pas ci suñuy kàddu suñuy jëf ak ñeewantoon gunu làmb ci wét yëpp ak yërmaandeem di ma tumb ci adduna ci alaxira ñeel mboolem xeetu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wa minhu jalla wa huwa sul fadlil xalaa ibaadihi arjo biha xëgal malaa maa ngi ñaan suñ borom li nga xamante ni mooy borom gën a lit ci ay jàmm maa ngi ci yaakaar ni ci téere bi mu nekk ak njub ñeel mboolem ñëpp nga xamante ni bëgg nañu sàkkoo yegg ci seen borom wa minhu aydan arfaji kanam niraam jin na taxaari am kulli malaan maa ngi yaakaar ci yàlla ba tey mu defal ma woy muy muy bakk képp ku ko jàng te defe ko ci lépp luy sabab bi yeddaante adduna ak alaxira wa qawluhu mun diyanaa fil xabri min fitnatin wa hamli yawmal xasri maa ngi ñaan suñu borom it mu nekk lu ñuy musal bu ñu takkee suñuy tànk ak suñuy loxo di ñu yor ci biir bàmmeel dañ ko lëndam di kën ko xat di kën jiin di kën jàng woy wi barkeem yàlla nekk luy yaatal bàmmeel ba te leeral ko te génn fa lépp lu ñu gërëmal ak mboolem fi mu ne taxawaay bis penc ba ak yi njàqareem muy bisu naqar di bisu tiis di bisu mbugal nga gis koo xamante ne dana lab ci ñàqam gis koo xamante ne ñàqam dalay ci ba jaram kii ci omam kii ci ndiggam kii ci baatam ba ñu gis ñuy lab seeni ñàq njàqare loo xamante ni kenn du tal kenn yoma yafama mala min aqihi wa ummihi wa abihi wal waahidati wa banihi kullu imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kenn ku ne da nga am loolu day su boobaa fukk ne bis boobee ak njàqare bis boobee yàlla na nekk suñu borom subhanahu wa ta'ala waan yakkoona jaaliban nuurayni lanaa bi fadlillah fi daarayni yàlla na nekk téere bi dañu biddil ñaari leer leer boo xamante ni ci lañuy xam fi ñuy teg suñu tànk maanaam sax ci di yàlla gërëm si adduna waaye mu nekk leer boo xamante ni ñun nag moom la ñuy jéggil siraat ëllëg yama xeema gis ba nga xamante ni wooy gëm ni seen leer dana leer seen xar kanam ba ñu gis fee jaar boo mën a jéggi siraat bu gàjjana yàlla nañ ko yàlla defal ñaari kër yëpp وأن يشوطنا تعالى أيضا هدى وحرفا من بها وفيضا يالنا نسم برم دولي مولي برم مادة أي برم كري أنجو أقام بني كي خمون سن برم سبحانه وتعالى أكفايد مي ببو لير بيبايو كي تيرم بسالة بي جمالوت تحضر في المرابية بيبور بسالة إغلاق سنة كلاب سنة خالص جمال بني ساسنة وحدنا ومن أيضا أطلب السلامة من الرسائل مع الملامة maa ngi sàkku suñu borom subhanahu wa taala it mucc ci lépp loo xamante ne caay caayi xol lañ koy wax ak lépp luy waral yeddaate adduna ak alaxira wa min hurumtu wa min hurumtu istiqaamata abat fii sunnati lmuxtaari xayri man habat maa ngi sàkku woo sax maa ngi sàkku ci suñu borom ba tey sax ci siraatal mustaqima sax ci sunna ci nga xamante mooy ki ñu tànn bi gën ko masa jaamu yàlla di yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam salaa sallam alayhi llah wala alihi wa sahbi wa man tafaahu yàlla nekk ci moom mucc ak xéwal ak ñu namati saxaba ba tëb koo ko xeñtu ba keroog adduna tëb aazana llah bi xodobi l anbiya min soxor iblis arais askiya yàlla na suñu borom musal ci dara ñu kilifa mbooleem ku mas a yónni te nekk ci moom da yaram dégg na yómaale na taw feexam ci ayu iblis mi nga xamante ni mooy kilifa way texarit ñëpp wax la ni mun ko limal damar ba sarri xaasidin isaana xasada ak kuutu gis ak képp koo xamante ni ku féttaglu la du lor nit ñi ci pas-pasam ci kàddoom ci jëfam ak ay képp ko añaan ñeem dem na ba feeñ ak añaan ak yàlla naa ci faj aajo képp koo xamante ni gis ñu ci téere bi te borom kenn def ci téere bi ñëpp ñu leen mu mën a doon at lu bu an yunjia kulli laman xaraa kitaabana aw fii xatara bala maa ngi sàkku ci suñu borom subhanahu wa taala bi mu sëb képp koo xamante ni jàng na suñu téere bii wala mu setantal ci daw awanaa lahu bi mulkin aw ishaara aw bi kitaabatin aw istihaara waaw maa ngi ñaan suñu borom it képp ku moom téere bi ku képp koo xamante ni am na téere bi ci moomeel moo xam da ko jënd wala da ko luyee moom téere bi wala mu bind ko fekk ku am téere mu bindaat ko sotti ko ci moom wala mu àbb ko ñun ñëpp yàlla na suñu borom subhanahu wa taala musal leen ba fekk seen aajo ak naka laa xam di jaaye dina sotti ahmada sala sallallahu alayhi sarmada ci darajee suñu soppe ki nga xamante ni moom la suñu borom di rammaloo di ahmad yàlla na nekk ci mu mujj ak xeel faw waaye li wa sahbihi wa kulli man kaana xeeruhu tabaa ila yawmi fitan ak moo fi ñoom ak saxaabaam ak képp koo xamante ni mu ngi xeeñ ko ay jeexital mu keroog yawmal qiyaama abwaabuhu balaatun wa xablaha shay'un muhaddamun falaa kullaha téere mu ne ñetti bunt la waaye ñetti bunt yooyu bala mu ca yegg si dana li nga xam muhaddamatun loo xam dañ ko jiital nee na nag na nga sàmmante lépp téere awwaluha fii fiqhi bayna al xalqi xaddan wa tafsilan wa bayna al xaq te bunt bi si njëkk mooy tudd diggante jaam bi ak boromam ci dayam ak jàppale ci diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala wallaay ne bi dikk na masaa'il wala zaahiratan baatinatan haysu turaa ñaareel bunt mooy tudd caay caay yi ñu ndéefi caay caay xol lañuy wax fii nag ci lu nëbbu wala ci lu feeñ ba def na ko mën a gis ba mën caa mucc mën a xeex ak moom ba mucc ci ngeen nga mën a yegg ci yàlla ndax mooy liy gàllankoor doomu aadama yi taarifa fistay aadabi mahan fadaili miskullaha tamtafa ñettal maanaam mooy suuf tudd tem jim yi nga xamante ni mooy ndax nit ki mën a jariñ ci diggante ba boromam ak boromam mën a yàlla ràññale lépp mooy tax nga mën a jariñ xasa abaan bi si fi leen maraam wala tudd ba xawala min allah salaam jamono ji nii mooy jamono wëlbati wëlbati ko nag jëf yi ma nam ak li nga xamante ne bëgg naa ko wax may sàkk ñu ko ci suñu borom nga xamante ne mooy añu jàmmale ci àdduna ak alaaxira ndax koy baax baax ak tila bil basmala walhamdi wasalaati summa alxawqara ñuy wax nag gannaaw ba ñu tàmbalee bismillahi rahmaan rahim ak alhamdulilahi rabbil alamin ak wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi ak wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al awwal kon yàlla di fam tey loolu lañ doon ubbee jërëjëf baraka